alhamdulillahi rabbil alamin wasalaatu lillahi sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam allahuma allimna ma yanfacuna wanfacna bima allamtana wa zidna ilma allahuma waffiqna lilcamali bilcilmi ala wajhi alixlaas allahuma ijcalna min almuxlisina almuxlasin واجمعنا مع المخلصين وارزقنا اللهم فهم النبيين وحفظ المرسلين أم الملائكة المقربين وأكرمنا اللهم بخدمة دينك وتبليغ شريعة نبيك صلى الله عليه وسلم أجمعين إخوة الإيمان السلام عليكم wa rahmatullahi wa barakaatu noo ngi leen di nuyu nuyu lislaam di leen ziyaara di leen baalu àq di leen baalu àq di leen ñaanali di ñaan yàlla tabaraka wa nu yàlla nangul ci weeru màgg wi nu nekk lu nu jaamu yàlla mu néew mu bari yàlla nañ ko yàlla nangul ci téere borom bi tabaraka wa taala ba tey ñu toll ci suuratu yunus tey ñuy jël ñetti aaya aaya 31 33 ñetti aaya yi nekk sunu kanam sunu borom subhaanahu wa mu ngi ciy jàngal ñeenti mbir yooyu ba ca jiitu mushriku larabi kaanu yushrikuuna fi l uluhiya wa yuwaxiduuna bokkaalekat yi dañuy bokkale yàlla tabaraka wa taala ci nekk gi yàlla ci lañ koy bokkale waaye dañuy wéetal yàlla ci moom gi mu moom loolu mooy lan mooy boo leen laajee ku defar asamaan ñu ne la yàlla ku defar suuf ñu ne la yàlla ku defar géej gi ñu ne yàlla ku defar jant bi ñu ne yàlla ku defar nit ñi ñu ne yàlla boo leen nee yàlla lañu war a jàpp nu ñuy def diw nu ñuy def bàmmeel bi nu ñuy def xeer bi nu ñuy def gis nga dañuy kenn bokkaale yàlla ci yàlla gi mu nekk dañ koy sellal ci yàlla gi mu nekk yàlla waaye bu desul lu dul yàlla lañu war a jaamu ñu bañ bakaanu bokkaalekat fi mu nekk nii même Sénégal ñi bokk koo ku moom asamaan xam nga ne xam asamaan nit mënu ko defar moom daal eh, eh, yàlla nga ni ko ku defar suuf xam na ne suuf nit mënu mu ne la yàlla nga ni ko géej gi mu ne la yàlla nga ni ko jant bi mu ne la yàlla nga ni ko weer yi mu ne la loo ko laaj ci àddina bi ci univers bi ku ko sàkk mu ne la yàlla waaye boo ko nee nag léegi nañ jaamu yàlla mu ne la ah nu ñuy def diw nu ñuy def sàmba nu ñuy def demba noonu la bokkaalekat yi meloon démb ci jamono yonent bi alayhi salaatu la bokkaale kay di di mel nangul mooy seen jikko moo tax tey ñëw di ñu wax seeni melo xam ne te ko moom tawhidul uluhiya ak tawhidul rububiya yàllaa kennal yàlla ci yàlla gi mu nekk kennal yàlla ci moomeelam ñoom ñëpp yàlla wax na ko ci benn saar ci xul auzu bi rabbin naas bi rabbin naas malikin naas ilahin naas gis làqatu ci buur bi nga xam ne moo moom nit ñi moo leen yar mooy rabbin naas waaye malikin naas buuru nit ñi ilahin naas yàllaay nit ñi ñett yëpp dañ ko war a kennal yàlla kenn waru ko diviser ku defar sàngam yàlla nañ jaamu yàlla moomu déet ñaafi an yuwaxid al abd fi rububiya wa yushrik mënta nekk nga kennal yàlla ci moomeelam bokkaale ko ci yàllaam mënta ñaar yëpp ay ànd soo gëmee ne yàlla sakk asamaan dangaa war a gëm ne kon yàlla moom dañ ko war a jaam soo gëmee ne yàlla moom comme dangaa war a gëm ne yàlla moom lañ war a jaam soo gëmee ne yow mii ci sa bopp yàllaa la moom moo la sàkk parce ah, que war nga ko jaamu kon waroo ko jaamu ci dëgg-dëgg kon war nañ koo jaamu ñetteel mooy laysa baadal xaq illa dalal mbokk yi ginnaaw dëgg lan moo fi des dëgg ngi nii dafa am guddi am am lu weex am lu ñuul am góor am asamaan am kon soo amee dëgg lu ciy tegu lan la caaxaan hmm. neen lu dul dëgg yàlla nag nee na laysa baada al xaq illa dalaal ginnaaw dëgg caaxaan moo fi nekk léegi nag dangay ngay wax ak nit mu ne <laughs> dëgg la waaye ñaata loon ngeen di dégg loolu dëgg la waaye dëgg amul waaye alxaq rabbik fala takunanna na al mumtarin loolu la yàlla wax yonent bi dëgg mi ngi bàyyeekoo ci sa boroom bul sikki sàkk ci dëgg dëgg ñëw na jëlal waaye da ngay dégg ne man de xam naa ne li ngay wax dëgg la waaye nag ndeysaan noonu lañu sunu yenn papa yi daan wax Euh, Saïd ma ne ko labbayka mu ne li ngay wax yëpp xam naa dëgg la waaye nag xam nga ñun mag ñi dem nañ ba pare soo mu mënee profité ci xale yi dégg nga loolu de am paay bu ñu génnee jàkk paay dañ koy xool imaam beeg bilaal yeeg ñeneen ñi daan ne diw diw diw ñu ne waaw ah, ñu ne xool leen Mamadou Thiam ndeysaan ci diine xale yi la nekk diine xale maanaam mooy julli def ni ñu ne diine xale li lii yonent bi indi ko ñu ne diine xale mbokk yi laysa ba'da alxaq illa dalal ginnaaw dëgg dara nekku fi lu dul caaxaan ak po fala waasita baynahuma amul tollale seen diggante wala nat fa man lam yakun ala xaq fa huwa ala baatil ku nekkul ci dëgg yaa ngi caaxaan koo gis nekkul ci dëgg rek mu ci caaxaan te ku nekk ci caaxaan boo dee la ak yàlla kon dëgg moo tax ñu sàkk ñu dëgg moo tax ñu war a dund te diina ji diinay dëgg la jullit bi na góor góor lu nekk ci dëgg moo gën mu nekk ci mpo nekk ci caaxaan dégg naa corona bi mu ñëwee musiciens yi sax am na ñoo xam ne dañu ne ah nañ leen tuub nañ leen delluwaat yàlla nañ leen ñun ñëpp xam na ne dañuy ah, waa nga xam ne li du dëgg nga bëgg ci dee te jii waajoo ji wax loolu bu dee woon nga gis benn naa fekk bu jóg <laughs> naan démb gis naa ko biir aljanna bu toog mu toog jox nañ ko sëñ diw sëñ diw jox na ko sëñ diw sëñ diw jugal na ko aljanna mbooleem band yi dee fii yëpp si ndax yi dee fii yëpp loolu ngay dégg ñi seen kilifa yi di wax jox nañ ko diw jox nañ ko diw jox nañ ko al jugu na ko aljana mbokk yi ginnaaw dëgg caaxaan moo fi nekk ñeenteel mooy atawaxulu fi charri wal fasaad yusbihu tabaan li xrij minhu xata yuhlik bi gis nga nuur ci caaxaan nekk ci bokkaale wala nga nekk ci mbon nekk ci caaxaan boroom doomu aadama ci génn mukk mukk mukk mukk lu dul mu dee yéen yi toog xalaat leen histoire ku ngeen mës a gis mu nekk ci caaxaan ndax tuub na ma rabb ñu ci néew ñoo tuub ñi ci génnaaw génn wàll gi yëpp dañoo dee demee mbon googu yowmal xiyaamati ay woykat ay mbër ay rappeur ay simbkat ak ay théâtre kat ak ay caaxaankat ay fokat ñoom ñëpp dañoo màgget ci mbir mi daal ci dee ndax man shabba ala sëy shabba ku nekk ndaw ci dara dee ci ndeysaan ku nekk dara ci ndaw danga ciy dee moo tax ñu ne boo nekkee xale jaamul yàlla balaa ngay màgget yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na xamsun qabla xams juróom balaa juróom ñëw mu ne bi nga nekk fi nga amee jaamul yàlla balaa ngay ñàkk fi nga amee temps jaamul yàlla balaa ngay occupé fi nga wére jaamul yàlla feebar fi ngay dunde jaamul yàlla balaa dee ñëw juróom balaa juróom ñëw ci tënk bu gaaw ci gàttal ñu yëg ne sunu ñetti ay yu ñuy jàng tey ñeenti mbir yi lañ ciy jële ñu ñaan sunu borom jalla jalaaluhu wa azza kamaaluhu borom màgg gi boroom kun fa yakun mu dëgëral sunu làmmiñ ba duñu tarxiis yal na ñu yàlla teg ci siraatal mustaqim ma bàyyi cheikh bi mu jàngal ñu aayay qul man yarzuqukum min as-samaa'i wal ard أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله قل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق الحق إلا الضلال فأنا تصرفون كذلك حق ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون بارك الله فيك سنو برام جلاله وعز كماله برام مجي برام كن فيكون moo wax seyduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam nañu laaj na laaj bépp mbindeef na laaj bépp doomi aadama bépp nit mu ne qul waxal yow muhammad sallallahu alayhi wa sallam man ana kan yarzuqukum moo leen di wërsëgal min assamaa mu bàyyee ko asmaan kan moo leen di wërsëgal kan wërsëg boobu di bàyyee ko asamaan mbokk jullit suñu borom subhanahu wa taala dafa soññ doomu aadama xassal xassa allahu taala ala qiraati ayati al qur'ani al yàlla dafa soññ doomu aadama pour muy jàng al qur'an ban jàng bi tamarunin duna an namurra alayha murural kiram yàlla dafa bëgg mu jàng alquran waaye ban façon jàng comme li xew léegi rek naa ci yenn saa yi ñu yónnee kuy jàngal subhanallah benn arab dafa gis benn benn africain mu ndeysaan ci weeru koor mu yor téere alquran di jàng fekk am ma yor de mu ngi bëgg a jàng isa sama um fatarat ma nga naan bismillahi rahman intarat arab bi ne ko eh taxawal yow loo soxla loo bëgg lan ngay def mu ne isa sama isa sama waa ji ne mais lan ngay jàng mu ne ko alxuraan laay jàng risoo téere bi ma yor mu ne ko téere alxuraan ngay jàng mu ne ko waaw waaw alxuraan laay jàng kay mu ne ko mais man li ma dégg ngay wax du alxuraan lii mu ne ko ah alxuraan laa yor nii mu ne mu daal di koy génne ndeysaan daal di koy wan mu ne waa liiral mu ne isama un point trois ndeysaan waa ji daal di xam ne kii bëgg na jàng mais xamul li muy jàng loolu moo nekk tey suñu dëkk bi moo dañuy jàng alxuraan ba sonn alxuraan bi duñu jëriñ parce que dañ koy jàngee yàlla dafa bëgg nit mu jàng alxuraan mu leer waaye mu concentré wu ci alxuraan texte lan lay wax mu bañ ko romb rek bif lu tax li kay natafaham maaniha wa daqiqa ngir ñu jàng maanaa yi comprendre ko bu baax a baax a baax ñu bañ ko jàng rek dër tey sunu borom dane qul man yarzuqukum min as sama loolu lan lañ ci war a dégg ana lan lañ ci war a jàng bu ñu jàngee aaye yi ñu concentré wu yàlla wër sëgal ana kan moo leen di wër sëgale mu bàyyi ko asamaan lan nga ciy jàng mooy di nga comprendre bu baax ndeke doomu aadama yàllaa koy wër sëgal waaye wërsëg bi fu muy bàyyi sunu boroom moo koy dogalee kaw asamaan wërsëg wërsëg bi daal di wàcc mu daal di comprendre su dégloo alquran ci lay comprender bu baax a baax a baax ndax kat ki xam ak ki xamul yamuñu qul hal yastawi allazina yaalamuun wallazina la yaalamuun innama yaxsha allah min borom ndeysaan wax na aaya bu mel nii ci alquranul karim mu ne ci suratul mulk mu ne wa fi samaa euh, ci suratul waaqia wamaatu adun gis nga mbooleem wërsëg yi ndeke kaw asamaan lay bàyyeekoo an rizqul insaan sawaun almaal aw il wa sixa wa gayriha ñu jàng ne wërsëg moo xam alal la xam xam la moo xam wér ak lu mu mun a doon yàlla tabaraka wa taala moo koy dogale moo koy dogal koy décider fan asamaan moo tax yàlla lim ñu dig mbokk yi asamaan la nekk ma fi hazi sunu boroom subhaanahu wa taala kàddu gii mu ne wa fi samaai rizqukum wala qul man yanzuru man yarzuqukum min assama boroom xam-xam yëpp dëppoo nañ nee na wërsëg woowu taw la taw lañu yàlla di wërsëgal taw effectivement lépp lu ñu am ci taw lañ ko am su yàlla indee tawam taw bi daal wàcc ci suuf si suuf si nu muy def day naat ñi bay yëf yi meññ àll bi neex jur yi dund njanaaw yi dund lépp dund baykat yi bu ñu jeyaayee seen alal suñ jaayee seen mbay daal di am alal jeex na kon loolu nga am foo ko jële boroom jur yi bu jaayee am kum ko jële ci taw bi kon lépp ñu ko suñu borom subhanahu wa moo tax mu ne qul man yarzuqukum min as-sama ana kan moo leen di wërsëgal koo xam ne mu ngi kaw asamaan kan la ana ku leen di wërsëgal kan la mbokk yi kon dina jaadu ñu daal di ànd xam sunu borom subhanahu wa taala sant bim ñu sant nañ ko jaamu waaye bëgg bi mu bëgg nañ ko jaamu kon suñu xamee ne yàllaa ñuy wërsëgal dootul jaadu ñuy bokkaale yàlla dootul jaadu ñuy dendale yàlla ak kenn dootul jaadu nga lekk wërsëgu yàlla ba pare daal di sant keneen kan moo lay jox yàlla subhaanahu wa taala waaye yàlla moomu di la jox ndax dina jaadooti ci yow yàlla di la jox ba pare ngay bokkaale yàlla tabaraka wa taala ndax loolu dina jaadu mbokk yi sunu borom subhaanahu wa taala wax na hadis boo xamante ne kursi la yonent bi alayhi salaatu wasalaam la ko wax nee na ëllëg ana wal ins wal jinn fii naba in azim ëllëg yowmal qiyaam man ak nit ak jinn ci tribunal bu mag tribunal boobu lu koy waral nee na axluku man yàlla maa sàkk fa yubadu xayri ñu jaamu keneen ku dul man allahu akbar yàlla la sàkk yàlla nga dem wala nga koy defal ay xeer ak doj ndax loolu jaadu na mbokk yi yàlla sàkk la sàkk sa moroom mi sàkk nga dem di topp beneen bindeef beneen bindeef nga topp nga bàyyi yàlla tabaraka wa taala ixwaan yi kon dana jaadu ñu góor góorlu delloo si ñu xam ne sunu boroom subhaanahu wa taala mooy kenn moo tax mu ne qul waxal man yarzuqukum min assamaa'i wal ard ana kan moo leen di wërsëgal ana kan moo nekk kaw asamaan ku leen di wërsëgal ci asamaan ak suuf kan la tont bi lu muy tekki mooy allah yàlla la am man yamliku sama wal absaar waaw kan moo moom dégg gi ak gis gi nopp yi ak bët yi ku ko moom kan la tontu bi mooy yàlla amman yamlikul asma wal absaar aha lakum wa in shaa minkum kan moo dégg kan moo gis yàlla su ko neexee mu bàyyi la nga dégg bu ko neexee mu nangu boroom xam-xam yi dañuy wax ne lu tax sunu boroom subhaanahu wa taala ci alquran barab yu bëree bëree bëree muy wax mbirum bët ak gis yàlla tabaraka wa dégg la jiital ak gis dégg jiital ak gis lu tax lool mooy liir ci biiru yaayam dégg lay njëkk def ak gis gi mooy njëkk formewu ci semaine yu njëkk yi bu formee ba pare beneen tegu gis doog a ñëw beneen bi mooy su demee ba am vingt cinq semaine ci la loolu ngeen di wax shabaka ngeen koy ne boo xoolee nga gis mooy capté image yi yàlla tabaraka wa taala daal di koy monté nag ci bëtu doomu aadama nit bu juddoo li muy njëkk a def liir bi li muy njëkk a def mooy dégg lay njëkk moo tax onze aaya ci alquranul karim sunu borom jalla jalaaluhu wa azza kamaaluhu dégg la fa jiital ak bët ak gis nopp la fa jiital ak bët kon lan moo jiitu dégg moo jiitu ak gis nit ki balaa muy gis dafay dégg ba pare onze saar suratul isra aya 36 sama wal basara wal fuaad kullu ulaika anhu kaana anhu mas'ula kullu bi nee na dégg ak bët ak xol nee na kullu ulaayika dañuy laaj nopp li muy dégg yowmal qiyaam ne ko yow nopp loo doon dégg dañuy laaj bët lu mu doon dégg xool yowmal qiyaamati dañuy laaj xol lum doon xalaat ak li mu doon ci yowmal qiyaamati kon mbokk yi lan moo nu war kon ci sunuy sunuy bët lan moo nu war kon ci sunuy nopp kon lan moo nu war ci sunu xol su fekkee yàlla nee na kullu ulaika kaana anhu mas'ula ñett yi yëpp ëllëg benn bu ci nekk yowmal qiyaam responsabilité lañ ko joxoon danañ ko ko laaj kon lan moo ñu ci war moo tax yowmal qiyaam yàlla bu nee doomu aadama waaw yow lii mu ne yàlla defuma ko yàlla mu ne ko ah defoo ko mu ne déedéet yàlla mu ne ko kon ma indi seede mu ne ko yow yàlla ragal ndax yow yaa ko sàkk yàlla mu ne kon kan mooy seede mu ne ah man de xaw ma waaye yow moom d'accord ma nga indi seede yàlla mu ne ko kon nga seede sa bopp mu ne waaw waaw alhamdulilah man kay naa seede sama bopp tey jii ñun kuñ taxawal nu tribunal ne la seedeel sa bopp looy wax di wax def naa lu bon foofu doomu aadama taxaw ci kanam yàlla yàlla ne tëj gémmiñ gi bët ne ana lil xaraami nazartu li araamoon doon xool nopp ne ana lil xaraami samitu li araamoon maa doon dégg loxo ne ana lil xaraami lamastu li araamoon doon laal gémmiñ ne ana lil xaraami akaltu tànk ne ana lil xaraami mashaytu fi araamoon man mii maa fa doon dem nekk malaaka bi nekk càmmoñ ne ana shahadtu fekke naa ko maay yàlla ne laqad araftu wa satartu xamoon naa ko waaye dama ko nëbboon rek waaye tey laqad istadda ghadabi ala man qalla hayaahu alayya tey sama mbugal dina nekk ci képp koo xam ne bi nga nekk ci àdduna danga ragaloon nit ñi ñàkke ma kersa yàlla soo wéetee bon rek ngay def nga ñàkke ma kon doomu ndey ñaareelu aaya sunu borom subhaanahu wa taala di wax ci yunus mooy aaya bii ñuy jàng tey man yarzuqukum min alsamai wal ard am yamliku sama wal absar ala nee kan moo leen di jox wërsëg ci asamaan ak suuf waaye kan moo moom nopp ak bët ñeenteelu aaya ci suratu huud yàlla ne maa kaanu yastati yastatiuuna ngi wax ndeysaan mbugalum àllaaxira ëllëg yàlla mu ne ñii yéeféer yii bokkaalekat yi lu tax ma leen di mbugal mooy bañ nekkee ci àdduna dañoo lànkoon bañ a dégg lànk bañ gis allahu akbar moo tax tey ñu leen di mbugal fii ci àllaaxira ma kaanu yastati yastatiuuna sama ñoom day dañoo mënul woon dégg wa ma kaanu yubsiruun mënuñu woon gis liñ leen di wax leen duñ gis ñoom daal ay caaxaan rek la ñuy déglu caaxaan la ñuy gis moo tax tey fii ci àllaaxira yàlla nee na ma leen di mbugal ñeenteelu aaya suratul xijra la nekk yàlla nee na illaa man istaraqa sama fatbaahu shihaabun mubin ngi wax ci kaw asamaan seytaane yi bu ñu demee déglu ji ci malaul aala ci keppaaru yàlla ci pays sell ya yàlla buy def dara di ko sant malaaka yi seytaane yi jinne dañ doon ñëw di déglu jàngeen ci suratul jinn yaa jinne di wax wa anna kunna naqudu minha maqaida sami faman yastami il aana yajid lahu shihaban rasada daan déglu asamaan waaye ay tey ku de bomb moo la fay fekk explosé sa kaw nga dee asamaan dañ koy garder ba yàlla yónnee yonent bi alayhi salaatu léegi jinne yi mënatuñoo yëg kaw asamaan di déglu juróom-benneelu aaya wala juróomeelu aaya yàlla mu ne wa jaala lakum as-sam'a wal absaara wal afida laallakum tashkurun ci suratul nahl yàlla mu ne man maa leen defal ngeen di gis ma may leen xol ndax ngeen sant ma mbokk yi yéen ñi ma jàkkaar lool dama leen di laaj te dama bëgg ngeen tontu yàlla nee na man yàlla man maa leen defal ngeen di waaw mane ndax nit li muy dégg mën na cee fay yàlla bu fekkoon ne bu dégloo ba ngoon ñu indi la facture yow bi nga yeewoo da ngay xam nga quatre heures nga yeew waaye da koy jéem a wàññi non man sànq laa yeewu de ñu ne la non nga ne yow yow yow waa xanaa xanaa ngay fay heure da ngay wàññi heure facture bi yow kañ nga yeew jamais da ngay jéem a wàññi heure bi waaw su fekkoon ne boo boo dégloo ba ngoon malaaka bi indi facture ne la eh, tey yow cinq heures nga yow bi ngay xëdd boobu ba léegi yaa ngi dégg waaw léegi ne tëdd jot na balaa ngay tëdd balaa ngay laal laal bi da ngay fay nooy def nga fay boobu ba pare nga yaakaar ne da tëdd ku yor bët yi ñëw patron nga ne ban heure nga yow nga ne ko non man man temps er yi ba sax temps yi xool ma dama doon gëm rek yow bi ngay xët cinq heures saa waay looy def nii yow nga yow cinq heures bi ngay xëdd nga ne ko non non non wóor na borom asamaan tey xëdduma man sax dama ne woon bu ma kenn yee ma après loolu laa continuer ah foog nga jéem a wàññi facture bi ngir fay ngir fay allahu akbar waaye xoolal wal afida xoola xol bi mas ngeen gis kuy dund ci amul xol bu sa xol bi di arrêté ngay dee waaw xoola ñett yàlla nee na bi ma ko mayee lan bi ma leen ko defalee lan laa bëgg mu ne laallakum tashkuruun ngir ngeen sant ma balaa ngay xam ne bët a neex nga ñàkk ko xool leen amoon na benn weykatu américain bu tuddoon Steve gumba la da doon wax ku fexe ba ma gis sama soxna ak sama doom ak xaw ma sama lan ma xaaj sama alal ci digg bi jox la genn wàll gi ku fexe ku fexe ba ma gis sama yaay ak sama soxna ak sama doom ma xaaj sama alal allahu akbar mbokk yi ñun ñi xam nga lu tax xamuñu xéewalu bët xam nga lu tax xamuñu xéewalu bët ah xam xamuñu xéewalu nopp c'est que dañ koo am dem leen dem leen ngeen laaj silmaxa yi ndax bët neex na wala bët neexul allahu akbar kon yàlla daf ñu sant beneen aaya ba ca tegu muy aaya juróom yàlla mu ne innahum ani sami la maazuluun qad ibadu anhu ñii sunu borom subhanahu dafay wax ne ëllëg yowmal qiyaama euh, bi yàlla yónnee seydina muhammad alayhi salaatu wasalaam ci asamaan yi yàlla nee na damaa soril seytaane yi dootuñu déglu asamaan juróom ñetteel mun a sam sama ak aksaruhum kaazibun loolu mooy njabarkat yi dañuy déglu jinne yi di leen wax waaye li ëpp ci ñoom ay fenkat lañ gis nga moo tax Selbé Ndom ak ñi mel ni moom day ngeen fan yi dama doon corona bi du mus a ñëw Sénégal ñëw na wala ñëwul ñëw na mu ne coupe bi ñëw ana coupe ane yi ñooy déglu jinne yi ñooy déglu bu nu déggee daal di ñëw wax la benn daal ci yokk fukki attention wala xamu yàlla baaxe wala nga tëj salaam miñ bi bañ a demee rëy bu jékki-jékki rek daal ne bi day ñëw coupe ba Algérie waaw nga jékki-jékki ne corona bi ñëw mu dugg sa biir kër waaw gis nga xala fen yooyu looy dégg fan yi ku naan buñ ma joxee xaw ma oto mu wër Sénégal fu nekk ma taxaw fa faj corona ku bëgg promenade te mu comme dañ ñoo tëj boobu ba léegi génnuñu ñu te mu ne te mu ne nañ maal iliko ma wër rek abal président iliko rek nga jaar ci kaw corona bi muy ñëw daf laa tàggu suy dem la tàggu corona bi jóge siin wër àdduna bi yëpp frontière bu nekk mu xëtt ko xëtt aéroport yi sans passeport romb ñëpp militaire yeeg armée de l'air armée de terre armée de mer fu nekk mu dugg fa la fi nee nañ alal ak ganu dof ñoo yem buy ñëw du tàggoo buy dem du tàggoo feebar mbas ganu dofa yem buy ñëw du tàggoo buy dem du tàggoo gis nga fi ne dañuy jékki-jékki rek ñu ne waaye ñëpp tane nañ waa léegi ñoom lu tax affaire ñu koy jeexalee rek kii na ana choléra Ebola corona lu tax ñu koy jeexal ah? sida koy jeexalee ci yooyu. ñoom ñëpp aar y' a quelque chose. waaw ah, y' a ci gàttal kon fukki aaya ak benn ngi nii yoo xam ne yàlla bi mu wax ci alquran ma ngi jiital ci bët mu ngi jiital dégg ci gis. sunu borom subhanahu wa taala ne wa man yuxrijul xayya min mayiti kan mooy génne lu dund ci lu dee ma laaj leen benn laaj nen ak ginaar ku mag ah, nen moom nen moom ak ginaar nen fu mu jóge nen fu mu <laughs> mu jóge euh, wa man yuxrijul xayya min al mayit kan mooy génn lu dund ci lu dee mooy fekk lu dee mu génn ci lu dund mu fekk lu dund mu génn ci lu dee ku nekk xam ngeen ne nen dafa dee ah yàlla tabaraka wa moo ciy génne ginaar ndoxum kese la teg ko fii nga dem boo ñëwee fi nga koy fekkaat wala doo ko fekkaat fi nga koy fekkaat yàlla moo ci génne mbindi saalu tàndarma saal tàndarma gis ngeen nu mu wooyee kan moo fi ndogoo tàndarma saal bi dafa woo koŋ nga jël ko léegi ji ko mu daal di génne lu dund allahu akbar waaye loolu yëpp dafa dee yàlla génne ci lu dund waaye yàlla mooy génne lu dund wa yuxrijul mayita min al yàlla day fekk lu dee aussi mu génn ci lu dund comme ni mu fekkee lu dund lu dee noonu lay fekkee lu dee mu génn ci lu dund yàlla mooy fekk yéeféer mu jur jullit yàlla gis yenn saa yi ab jullit mu jur yéeféer yéeféer dafa dee jullit dafa dund mu nga wa yudabbirul amra yàlla mooy kër mbir yi ci àdduna bi yàlla mooy fenkal jant bi moo koy sowal ba Namrud ne maay yàlla gars ne ko doo yàlla mu ne Ibrahima kan mooy yàlla Ibrahima ne ko yàlla mooy dundal yuhyi wa yumiit mu ne ko manta tam mun naa ko yàllaay dundal yàllaay rey ñaari rey kenn ki daal di bàyyi ki ne gis nga kii dundal naa ko <laughs> Ibrahima ne ko sama borom mooy jële jant bi penku yóbbu ko sow su ko yóbbee soow indi ko penku ko bu hital lesi kafar mu xam ne loolu mënu ko waaw gis nga kon sunu borom subhanahu wa taala wa man yudabbirul amra ana kan mooy kerye mbir yi sunu borom oxygène bi ñuy noyyi kan moo ko indi géej gi kan la kan moo ñuy jox jën yi xéewal gi kan moo indi guddi kan moo indi bëccëg sunu borom subhaanahu wa moo yor àdduna bi ci loxoom di ko manipuler lu ko neex lay def moom mooy defaral mbir yëpp seen doomu aadama yi pour lu ñuy dundee alxaat seen dund wal mamaat seen dee wa sixa wér wal marat feebar wal ata wal man u xañ yàllaay joxe mooy xañ mooy dundal mooy wéral mooy feebaral moo moom dund gi moom yàlla tabarak bindeef yëpp sunu borom jalla jalaaluhu wa azza kamaaluhu moo leen di tàggatal nu ñuy dundee gis nga lii boo ko laajee boo ko laajee doomu aadama yi kan mooy def lii ku ñuy wax lan la aaya bi tàmbale woon man yarzuqukum min as-samaa'i wal ard kan moo leen di wërsëgal mu jóge asamaan ak suuf am man yamliku sama ku moom nopp yi wal absaar ak bët yi ku yor dégg gi ak yi kan mooy génne lu dund wa man yuxrijul xayya min al mayti kan mooy génne luy dund ci lu dee min al xayyi kan mooy génne lu dee ci lu dund wa man yu dabbirul amra kan mooy defar mbir yi yi lan lañ lay wax fa sa yaquluuna dinañ la ñu ne la allah yàlla la buur bu tudd allah moo koy def waaw lii kon fa qul yow muhammad afala tattaquun kon lu tax du ngeen ragal yàlla moom su fekkee lii ma leen laaj yépp yéen ñëpp nangu ngeen ne yàlla moo koy def kon lu tere yéen ngeen ragal yàlla wala lii yëpp ñu wax kan moo koy def ci mbinde mbindee fi li sénégalais yi di mën a bokkaale mën a bokkaale yëpp dégg goo fi sëriñ bu ñu wax mooy def lii wala di ngeen ko dégg ñi duñu ragal yàlla laaj leen ko laaj leen lu tax duñu ragal yàlla fa lima laa tattaquunahu lu tax du ngeen ko ragal moom yàlla fa qul lahum ya rasulana afalaa tattaquun ay afalaa taxaafuuna iqaabahu lan moo tax duñu moytandiku mbugalum yàlla lan moo tax duñu moytandiku merum yàlla ci àdduna ak àllaaxira yàlla yàllaay def lii amul kenn ku koy def doomu ndeyi mbokk yi léegi ba sunu zakamaalu waxee li mu def waxee mooy kan mu wax li mu def xam nga lu mu ci teg ba ñu laajee laaj yi amul kenn ko tont déglul yàlla lu mu wax mu ne fa zalikum allahu rabbukum ul kooku de def lii mooy seen boroom bi nga xam ne mooy buuru dëgg fa zalikum allahu kooku mooy seen borom alxaq te mooy dëgg waa léegi fa maza baadal xaq illa dalal ginnaaw dëgg nag lu fi des ginnaaw dëgg lu fi des mooy caaxaan salaatu wasalaam su jógoon xaaja guddi dinaa fi moom yonent alayhi salaatu wasalaam ndeysaan su jógoon guddi muy naafila dafay jàng moom yonent alayhi salaatu wasalaam ñaan goo xam ne lamu ci jàngal mbindeef yi doon ci jàngal doomu aadama yi mooy pour ñu kenn yàlla tabaraka wa taala yàlla mooy kan yonent alayhi salaatu wasalaam ci xadisu ibnu abbas nee yonent bi bu yeewu woon bëgg a julli guddi day wax allahumma laka alhamdu anta nuuru samawati wal ard walaka alhamdu anta qayyumu sama walaka alhamdu anta rabbu samawati wal ard wa man fihinna anta alhaq wa waaduka haq wa qawluka haq wa liqaa'uka haq wal jannatu haq wan naaru haq wa saa haq allahumma laka aslamtu wa bika akaltu wa ilayka unib wa ilayka anabtu wa bika xaasamtu wa ilayka xaakamtu faghfir li ma qaddamtu wa ma axartu wa ma asrartu wa ma alantu anta ilahi la ilaha illa ant ñante bu yeew woon guddi dinaa fi la ñaan bi lay wax day xool kaw asmaan ba pare daan ne inna fi xalqi samawaati wal ard ba pare daal di jàng ñaan bi ñaan bi dafa correspondre ak aaya bi yàlla tabaraka wa taala di wax nii famaza baadal xaq ginnaaw dëgg caaxaan a fi des moo tax mu ne yow yàlla tabaraka wa taala antal xaq yàlla yaay dëgg wa waaduka xaq li nga dig nit ñi dëgg la ëllëg yowmal qiyaam imma janna wa imma naar benn ñu dugg aljanna wala ñu dugg safara wa qawluka xaq sa wax dëgg la alquran jii sa wax jii mooy dëgg allahumma laka aslamtu waqa bi mu ne yow yàlla yaay buuru dëgg wa waaduka xaq wa qawluka xaq sa wax dëgg la mu ne wa liqaauka xaq dajeeg yow dëgg la wala dañoo weddi ne duñ dajeeg yàlla làbb dañu dajeeg yàlla wa waaduka xaq lim ñu dig dëgg la wal jannatu xaq aljanna dëgg la wan naar xaq safara dëgg la wa saatu xaq bés penc ëllëg yowmal qiyaam dëgg kon moo tax yàlla mu ne ginnaaw dëgg mbokk yi lan moo fi des fa maza baadal xaq illa dalaal ginnaaw dëgg lan ngeen bëggati comme dara nekk mu ne fa annaa tusrafuna fu ngeen jëm da ngay dajeeg nit mu ne la wallahi dëgg la waaw waaw man kay xam naa ne dëgg la waaye nag bi nga xamee dëgg la rek jëlal dëgg gi kun lil xaqi abdan wa abdul xaqi xurran nekkal jaamu dëgg jaamu dëgg gor la dëgg ndax dëgg rek am solo boroom xam-xam yi dañuy wax ne dëgg bu réeree ci mpénc ñu koy wër suba ba ngoon gisuñu ko maga kilifaa fa juum dëgg bu réeree ñi koy wër gisuñu ko kilifa gi mu nekkul ci dëgg kenn ñemewu ko wax ndax ko wax doo ndogu kilifa bu juumee <laughs> ndeysaan gis nga moo tax suñu kilifa yi kenn du leen wax dëgg te xam nañu ay pénati yi rek lañuy def mais kenn ñemewu leen ko wax lu tax parce que ñoom ñooy kilifa yi doomu ndey yi sunu borom subhaanahu wa taala mu ne kazalika nii ma leerali lii ba mu leer nañ xaqat kalimatu rabbika ala allazina fasaqu annahum laa yuminuun allahu akbar kazalika nii xaqat ma yeyale ma dëggale kalimatu rabbika sabaati boroomi nii kàddu yàlla gi dëgg nii alquran dëggoo wax yàlla tabaraka wa taala nii sharia dëggoo nii yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla yónni ko ci dëgg nii sunu borom subhaanahu wa taala waxee dëgg gi ne dana tegu ci kaw ñëpp ay saay lañ alal lazina ci ñi nga xam ne fasaqu ay kàccoor lañ annahum laa yuminuuna duñu gëm gis am na ñoo xam ne duñu gëm kenn mun ta fexe ba ñu dellu ginnaaw dee rek safara rek kenn mun ko ndax yàlla nee na ñi xatama allahu ala qulubihim wa sam'ihim wa ala absaarihim xisaawa walahum yàlla moo kaste seeni xol yàlla moo kaste seeni nopp gis nga nopp wala abu salim yàlla kaste bët yi nopp li doon jëriñ mooy nga dégg moo waa safara bu ñu duggee safara lu ñuy wax law kunna nasma aw naqil ma kunna mooy buñ doon dégg kon tey doon dugg safara yàlla subhanahu wa bu la naree xañ dëgg bu la naree xañ njub say nopp lay tëj tëj sa xol su boobaa nag ci kàccoore ngay dee yàlla nee na kàccoor yi annahum laa yuminuuna yàlla nee nit ñi duñu gëm nag ñi duñu gëm kon doomu ndey yi njàng gu rëy gu ñu war a jàng tey ci sunu dars bi mooy ñu xam ne yàllaay wër sa loolu mu leer ci ñun yàlla tabaraka wa taala mooy dundal du musal kàccoor ëllëg yowmal qiyaam ñett yi mooy yu gën a rëy yu ñu war a jàng tey ñu yëg ne kàccoor du gëm yàlla annahum laa yuminuun xolal xolal gaa yi nga xam ne ñi ni ñuy waxee diine ji ñi yàq ñi ñi yàq koor doomu aadama yi ci télévision yi boroom xam-xam yi waar nañ leen ba tàyyi waaye ndax dégg ngeen kenn ci ne dama ne damay tuub ba weeru koor gi jeex ni ñuy saboté lislaam di saboté ay théâtre ci l'islam di di def lu leen neex ba léegi ci lañ continuer boroom xam-xam yi wax nañ ba tey ne leen loolu araam na baaxul waaye terewul gis nga moo tax kàccoor du gëm beneen dars bu gën a rëy mooy suñ déggee yàlla mu ne kàccoor du gëm yàlla kon ñun lu ñu war bu yàlla ne kàccoor du gëm yàlla nga dégg yow kon nga jéem a bu fekkee ne ab kàccoor nga nga jëm ci génn nga moytandiku yoonu kàccoor yi ndax na yàlla nee na kazalika xaqat kalimatu rabbi ala allazina ala allazina fasaqu laa yuminuun yàlla nee na kàccoor yi man ñi duñu gëm mukk jalla jalaaluhu wa azza kamaalu kon doomu ndeyi mbokki jullit lii mooy sunu dars tey ñoo ngi jégglu njuumte yi di ñaan yàlla tabaraka wa taala nin yàlla boole ci àddina ñuy jëflante yal nañu yàlla boole noonu ci aljanna asalaamualeykum wa rahmatullahi wa